على أشرف وأكمل رسل سيدنا ومولانا محمد بهجة الكون وضيائه وعلى آله حق قدره di leerloo leeral jamono muy rajo télévision bu wal fajri fu ngeen mun di nekk ci mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan day walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta day walis ko ñu tibbee ko ci suñu xol jëmee ko ci seen tedd yu sell yi muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di del si waat ci kartanal yàlla fas yéene ànd ak yéen seen émission bi di farwa ngeen baax ko am tuddee àjjuma bu jot ci waxtu yi ànd ak seen xarit seen soppe al imam hasan diouf tey nag alimaam Xasan ñi am tabaarakallaahu gan bu tedd di borom xam-xam ci di jàngalekat waaye tamit di conférencier di alimaam Ahmed Diop mu nekk borom xam-xam bu baax tabaarakallaahu bu tedd boo xam ne mën nañ ko koo seedeel ñoo ni si naawam waxoon bala ngaa mën a seedeel sa mbokk mi ak mbaax dafay fekk nga mën a ànd ak moom ci tukki dana nga seq moom ci wàllu soxna yi ci wàllu jëflante yi ci am am na alhamdulilahi rabbil alamin a seq na loolu tukki moo xam ne dana diire fukki fan ak juróom jëm fukki fan ak juróom ñaar alhamdulilahi rabbil alamin ay déplacement yu bëri ci place yu wuute ci diggante madinatul munawwara ci diggante makkatal mukarrama ak ca munaa ak ca arafa ak waaye ànd ak lépp rek lépp rafet moom moomu nag tey mooy suñu gan ngeen ñiin ko ci RTS bu fay def émission bu am am solo ci ànd ak suñu xarit suñu soppe dañu naan Moussa Dine yaakaar naa boobu émission moom miin ko bu baax ñu dalal ko fi mën a fàttaliwaat ñu ñu war a waajee tukki mu màgg mu sell moomu nga xam ne gën ci tukki fa ñuy tukki ngir jëm fa tamit mooy gën ci barab yàlla gën ca place ba ca ba ci daaw dafa gën ci di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam àndandoo rek nga xam ne ñoom la ñu denc ñu tëddandoo ak moom fële ca wetu armée ga ca gën ci kon nak ku war a waaj jëm ci place boo xam ne moo gën ci place yi day fekk jëmm joo xam ne moo gën a màgg ci jëmm yi war nga koo waajal dëgg dëgg waaj waajal ko ci sa bakkan waajal ko ci sa roox waajal ko ci sa xel Ini koo ayam tamit ci sa sax mbokk iranien yi ak yi ñoom ak ñu ñoom dañuy ajak at ba ñu yëg ne yow ren moom ab ab maanaam apt la di door ne yow déwén waaye doo waaj rek ñu ne am nga billet may nañ la billet sa doom may ne la billet rek nga takk say bagage rek dem te la ciy bëri koo xam ne dana dem ba yegg ndeysaan ak sa sa hmm. la bay ko sax hmm. ñoo xam ne dinañ dem ba yegg fekk na seen sangum jana ba sax rafetal bu nam war a mel moom mii sax gis naa mu ci def njàngale mu am solo ay duur yoo xam ne gannaaw bu ñu jullee timis mu am ci fan yoo xam dafay jàngal nit ñi faatiha lay commencé naka lañ war a mën a jàngee faatiha bu rafet yoo xam ne nii du am benn yàq bu waxee ñu toppandoor a ña fa nekk buñ paree kenn ku ne mu yëkkati sa loxo ne waxal na bi te loolu am na solo gannaaw faatiha bi nag ak mën a ñëw comme nag laa salaata illaa bi te loolu bari na ñoo xam ne mënuñu ko suñ mag daara njëkk a màkk sax dem seeti imaamu màkk ne ko dama bëgg nga déglu sama faatixa bi ndax rafet na ngir ñàkk wóolu seen bopp hmm. kon moom tamit du rek sax ci aj bi ci encadré leen ci wàllu xam-xam ne dafa ñu encadré waale hmm. ci wàllu jàngale leen ci ay duruus yoo xam ne ñoo am solo hmm. kon ma ba bañ a gudd rek ak sa Assane ma bàyyi la nga dalal suñu gan bu tedd gi tabaarakallaahu al imam Ahmed Diop bàyyi ko ba Thiès bokk ñu suñu émission bi di émission am ndax plateau yëpp benn lañ jërëjëf oustaz Hady ñu lay sant ci introduction bi daanaka lay saayal nga waxtaan wi waaye rek damay sof ci fi nga sos muy imaam Ahmed Diop mi nga xam ne moom la ñu dalal tey comme ni nga ko waxee xam nga ne moo yore wàllu diine ja ci agence de voyage boobu nga xam ne dafay saytu wàllu aj ak umra ci biir aj gi ànd nañu ak moom waaye bi ñu ànd ak moom ñu ngi ànd ak borom xam-xam boo xam ne dafa ànd ak pédagogie ndax dafa def ay innovation yoo xam ne jar na méditer mboolem ñuy organiser pèlerinage ñu mën a def lu mel noonu mooy elaaji bi nga xam ne waaje bi nga xam ne ñëw na di bëgg a jëf farataam boobu nan lañu koy profité occasion bi ba bu delloo mu yokk ci xam-xamu fiq loo xam ne dina ci xamee diineem lu bokkul sax ak aju mag ndax loolu beneen mbir la pratique la boo xam ne looloo koy defandoo xëy na juum ci ku xereñ rek mën na cee bañ a tàbbi waaye ci biir loolu ala haamishil hajj li ma tuddee li ma mën a tuddee li euh, imam ahmad Diop doon def xam ne ñu ngi ci naaj bi am nañu jàkk jàkk jàngi nii kaay leen ñu waxtaan na ñu taxaw ci faatiha comme ni nga ko waxee ca njàngin ma ca la muy firi ak yeneen masala fiq yoo xam ne boo xam ne muy laaj ci sa wàllu diine nga xam ne elaaji bi ak ajaratu bi bu ñu dellu Sénégal fekk ñu ngi nekkoon ci pèlerinage bi gaa waaye ñu ngi nekkoon ci formation boo xam ne waroon nañ ci mën a am sax diplôme ne def naa diplôme de formation ci wàllu fiq boo xam ne fiq bu leer la nag ndax nit la koo xam ne lépp lu muy wax daf ciy teg baaraamam ci fan la nekk lay nusuus lay lay teg loolu kon kooku la ñu la ñu la ñu dalal tey muy imaam Ahmed Diop euh, dañ koy dalal nag ñu bëgg fas yéene anticiper ndax li nga war a defe ji teel ko xam aayul te bari nañu ñuy seetaan tey ñoo xam ne dinañu bokk ci ñi war a dem ci pèlerinage bi te xamuñu ne dinañu dem ñoo ñu kon war nañu déglu bu baax comme que xamuñu ne ñoom lañ ku ci nekk war na déglu bu baax ba yóbbal bi ñu fi nar rotal tey Euh, mu nekk yóbbal pour yow. boo demee ba war a bokk ci ñi nga xam ne war nañu def ci aju Màkka ci te ci lu dul loolu même ki nga xam ne du dem xam sa diine dafa baax ci lu nekk. azaka boo amulee alal ak am nga alal da ko war a xam aj Màkka di nga dem wala di am nga ngànt da nga war a xam ndax xam-xamu diine rek njariñ la day tax sa sa pas-pas gën a kon ci cadre boobu rek lañ ko dalalee fii tey. waxtaan wi nag dina am ci slaayu expérience bu Mariga voyage. bi nga xam ne nekk na référence ci biir agence yi nga xam ne ñu ngi organiser pèlerinage. te nekk ay agence privée ci biir Sénégal te loolu ujjaaj yi nga xam ne dinañu faral di ànd ak ñoom seede nañu loolu ci ay béréb yu wuute wuute. Imam Ahmed ginnaaw bi ñu la dalalee ci plateau bi nga xam ne mooy plateau Fatwa. xanaa rek ñu tàmbaleeg yow ginnaaw bi ñu la bàyyee nga nuyoog mbokk yi ñu tàmbaleeg yow. ci euh, étape yi nga xam ne mu ngi ci pelerinage bi te élage bi war cee bàyyi xel ma yaakaar ne première étape bi nag mooy jullit bi en tant que tel mu aj màkk nekk ponk boo xam ne moom daf ko war a xam naka la ñu war a mën a def ba nga xam ne nit ki bu demee ba ne damay aji ji màkk fekk kat mu jiitu loolu jàngoon na ko ba xam ne lii ponk la yu bokk bokk ci sama ponk diine nii la demee nii la demee nii la demee ndax retard bu amee ci loolu su wëttuwul bu demee ba war a dem jafe-jafe mën na am kon imam ahmad xanaa ma bàyyi la rek nga nuyoog mbokk yi bu ko defee nga ñëw ci laaj boobu الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحابته أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين نجي سنتي الله سبحانه وتعالى ذكر ذكرهم بجل شننتم بتدبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما رأوا مبكي بلتي مبكي تلسبتاتي مني تكفيتي والفتيبي بي ما نكتش أبدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي أم بيتي أكونتان لول في وقتك آه، سيدي الإمام الساز هادي نس حفظه الله تعالى لك آه، سيدي الحسن جوف مونتميت آه، أم نجي دان تورتي أكونتان تي أم بيتي لول تي تي وفي تي جتاي بي بحنا من يعني تي ظاهر ومعنى ياري لجتاي بنيو بولي سنجي دمليني daf jiitu woon na fële ca Makka waaye nag ca baatin ak ci te si ruux ak xol ak ci bëgg-bëgg ak ci yeneen i làmmiñ loolu moom wax dëgg yàgg na ndax bokk na ci li may faral di dégg toujours maak imam haadi mi ñuy faral di boole di tudd du lu ma def nag du lu ma def ne yàlla moo ko def te boobu suñu jëmm yi te seeguñ bari na ku ma wax ne gannaaw si maam haadi de yow lay déglu ci jàng loolu moom sama nopp miin na ko naka noonu moom Cheikh Abdul Aziz Sy al amir al xalifa al amin rahimahullahu taala wa saana al xalaq yaa gën a yóbbante imam Moussa ay yóbbante yoo xam ne dañu ci encouragé hmm. di wax naan eh, sëriñ Hadi Niass ak eh, diw maa ngi leen di ñaanal di leen encouragé di leen wax ni bokk ngeen ci war ñu war a wax woon hmm. eh, sëriñ Hadi du ma tudd loolu hmm. waaye di sax yóbbante bi Moussa bul ko wax ci télé mukk waaw ndax mi nga xam ne moom nga seede rawatina nag ci jëmm ji loo xam ne nag euh, di ko wax ci kaw. kilifa ñeme na ko waaye. Hmm. njaboot ñemewu ko. waaw <laughs> ah, ñun ko. Hmm. loolu moom euh, na topp ci nopp yi. Hmm. yàlla subhanahu wa taala def nañu ànd ci liñ doon séen ak di ko déggoo fi sori ñi di ko taataan ci fu jege. ñoo xam ne yéeme woon na lool man ni ci sama bopp wax dëgg yàlla topp indaale ko di ko waxtaane yi di ko réviser daf ma joxaat beneen yoon ci wàllu waxtaanu diine lan la ci nit soxla dama miinoon lu ci bari su ma xasee wax ca ñi ma àndal ca groupe Marega Voyage daanaka ku waxati dangay ngay rek ab saraxul sa saraxul leen koy wax nee na lii wala xalpulaar wala keneen hmm. waaye bii yoon bi ñu àndee dama ci yëg dëgg dëgg dëgg ne benn équipe lañu boo xam ne dañuy mottalante ndax waxtaan wu sujet bu ma jël tomb bu ma jël waxtaan ci su ma noppee su imam haadi jëlee macha allahu dana ko dana ci waxtaan ba matal te daanaka du soxla tudd sax xadis mbaa aaya boo xam ne tudd naa ko lépp loo xam ne nekk na ca ci xam-xam rawatina bi sawi rawatina la aju ci wàllu ruux mu indi ko teg bare bare bare bari ñëw nañu ba suma néeg wax ma seen dund ak waxtaanu imam Haadi ci ak waaw loolu ma ne leen maa leen ci jiitu mais ci suma bopp alhamdulilah rabbil alamin bu Oustaz Assane jëlee moom it wàcce waxtaan wi lu mu xóot xóot ci biir sharia ak ci mbiri xol mu wàcce ko ci actualité ak sunu digganteeg ñi ko amul loolu tamit doon beneen mbir moo xam ne tax na ma gën a am ndolleeku waxuma rek ci jëmm li mu waxoon waaye waxtaan la mu laaj lépp la ci nit ñi soxla lépp waxtaanee ci ak sax dana ca wax la nga xam ni moom la ca ñeneen ñu dul ñun wax lan lañ ca seetlu ak nan lañ ca ëppalee lañ leen ñu dul ñun comparé ko it ak uh, ñeneen ñi dul ñun nga xam ne amuñu chance bii ñu sa am ci diine lislaam ci sayyidina muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam ci suñu alquran ji mu doon ay waxtaan yu rafet rafet rafet yoo xam ne ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa yàlla bu mu dakk dal day continuer ak a neexoon jullit yi am ñu leen di sottil ci seen ndabi xol yooyu nga xam ne benn bu ci ne soxla na ñu fay sotti ci yii nga xam ne moom la ñu tudd sànq ah, doon ànd bu rafet boo xam ne dara feeñu ci ne kii daa nekk ci RTS kii daa nekk ci Walfadjri déedéet waaye ah, alhamdulilahi rabbil alamin lii nga xam ne moom la ñu bokk bokk kook ñu ñu àndal ñu jiital ñu ci am lu ñu ci séentu ñu di leen ko jox di ci jëlaale nu mu gën a rafetee noonu moo doon ànd bi mu rafetoon lool ndax mu ne toogaay bi moom tey la waaye nag wala boog ci at bi la njëkkee waaye balaa loolu am na lu ko jiitu gannaaw loolu imam xasan question boobu di li nga xam ne moom moo war jullit bi ci wàccaayu aj mbir la moo xam ne jara waxtaane la mm-hmm. waaw mu jara waxtaane la ndax ñàkk waxtaane bi eh, toujours mooy tax muy feeñ sel bi yenn ci anam boo xam ne bu négatif la euh, fële ngay seetlu ne ñi nga xam ne ñoom la ñu gën a préparé toujours mm-hmm. la seen ak di gën a rafet mm-hmm. ñuy gën a neex a jiite ci ak ci wàll wu ne ndax wàllu lislaam bu jegee rek li ñuy wax organisation li ñuy wax mbiri administration li ñuy wax lépp lu mën a doon dafay jëkk ndax kii def dara ñu teel ko cee yee mu ànd ak tiit ak moytu xam ne ndekete mbir mi ah dafa nekk ci diggante nangu ak ñàkk a nangu ndekete mbir mi liñ ko ci digg yëpp li mu réyee dafa di xajjum mabruur waaw ah, boo xoon sa xajjul maqbul ñu ne ci yàlla la yàllaay nangu yàq nangu waaye mabruur kan moo koy kan mooy defar aj bi ku koy baaxal mu xam ne ndekete ci liñ ko dig liñ ko dig yëpp da ngay gis kooka doxinam waxinam léppam day moytu day neex a gindi loolu tax waxtaan woowu jara jara jara jara waxtaane la du fii rek waaye fépp foo xam ne rek euh, borom xaar maa ngi fa jullit yi la déglu rawatina ci jamono ji ñu toll ba keroog euh, ñuy egg ci àdduna euh, waxtaan bu ko jar la waaye nag dama taamu woon njëkk di déglu seen aadi mu ubbil ñu ñu am bunt insha allah bu ñu mën cee am fu ñuy teg suñu tànk bi sa insha allah te bunt bi sax mooy foofu nga junj oustaz aadi xam nga lislaam dafay xërtal nit ki julit bi sàkku xam-xam هل يستوي الذي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون حديثي خرتل نيني بور ني جانغ خام خام بارينا xam-xam boobu bokk na ci xam-xamu diini rawatina ponk lislaam yi waaye dafa mel ne li ñu seetlu ci monde islamique bi du senegal rek mooy nit ñi li ëpp ci li ñuy jàng daal mooy julli ak woor joxe azaka bi sax daanaka tuuti la ci aj nag muy war a aji ji rek mooy dem nag di jàng aj léegi ci ba nga ko soxlaa te fekk loolu yëpp li nga war a jàngee sa julli sa azaka ak sa yeneen yi loolu nga war a jàngee sa mbiruk ajug màkk est-ce que loolu nekkul ne sax mooy cosaanu jafe-jafe bi. ci bu ñu wàcceek ay nit ci terrain bi fa la ñu war a aj màkk bi ñu xam lu ñuy def. Xasan euh, ñi delloo sant tabaarakallaahu al imaam Ahmed Diop ci kàddu yi nga xam ne ubbee na ko di kàddu yoo xam ne yu ama am solo la waaye kàddu la yoo xam ne tamit yu tegtale la mu mel ni rek euh, ay imaam Ahmed euh, aj dafa ajoo. képp ku takk sa bagage war a jëm ci liggéey bu réy bu màgg boobu nga fexe ba lu mu néew néew néew nga yóbbuwale ñetti sérité mënul ñàkk ñett yi bu ci manqué rek da nga sonal ñi lay encadré ñett yi nag bi ci ëpp solo te jiitu ci mooy xam-xam fexe ba xam naka la lañuy ñuy aje jàng ko ñaareel bi dafay aajowoo nga yóbbuwaale sérité boo xam ne moom la ñu tuddee kartan parce que boo yoree xam-xam bi te amoo kartan bi tamit da nga sonal ñi nga xam ne ñoo lay encadré ñetteel bi mooy am-am ñett yi mooy ñetti jumtukaay yi ëpp solo ci ki takk bagaasam fas yéene kam damay damay aji xam-xam moo war a jiitu xam-xam bi nag dana yaatu xam-xam bi nekkul rek nga xam ni ñuy ajee waaye danaa dana ajoo tamit nga xamaale ci ni ñu war a nekkee koo xam ne maa ngi door a nekk ak moom ci nekkin bi maa ngi koy door a gis mën naa am sax déggunte wuñ ci ay làng mën naa am bokkuñu sax ci ay raso mën naa am bokkuñ tamit ci ay waaso mën naa am tamit tolloowuñ ci génération kooku kenn ku ci nekk dangaa war a jàng naka nga war a nekkee moom te xam nga nekkin woowu léeg-léeg mu xaw a nekk lu compliqué loo xam soo defarul sa jikkoo nga jàng ko nekkin wa day jafe ndax da ngeen toll moment boo xam ne da ngeen di bokk néeg ñu fexe ba ñeenti nit bokk benn néeg war a bokk benn toilette kenn ku ci nekk bu ca war a demee war a waaj xam nga waxtu wi léeg bu tax ba taxawee ñëpp war a waaja lool loolu dafay laaj nag nga nga nga nga nga jàng loola miin ko bu baax a baax c'est que nga taamoon fi sa néega bopp sa salle de bain bopp boo demee war koo bokk ak ñeent nag te waxtu yi bu jotee yéen ñëpp war a bokk leen ñaareel dem ci Kaaba ga nu ngeen koy bëggee kooku laaj na xam-xam laaj na tamit jikko bu baax a baax a baax nga xam ne yow doo loru mais tamit doo lor ñi nga xam ne ñoom nga ñoom ngay ñoom ngay nekk. Hmm. ni nga tàmmee woon boo nekkee sa néeg a bopp yore sa euh, portable bi euh, bu la nekk yaa ngi jokkoo yaa ngi def nangam léeg nga bokk koo xam ne mën naa am def loolu yaa ngi koy lor te doo ko doo ko seetlu ni nga tàmmee woon saa yu ma neexee taal lamp su ma neexee fay ko. yow tamit léeg-léeg nga taal làmp boo xam ne ki ngay ñëw ak soxlawut ñu taal làmp bi dafa laaj moom mu war a dallu yooyu yëpp xam-xam la boo xam ne dañ koo dañ ko dañ war a jàng gannaaw bi nga xam ne li ci gën a yomb ci état bi mooy fi nga bokk nit ñi ñeenti néeg ñeenti nit ñu ne benn néeg mais danga dem ba tollu moment boo xam ne benn néeg la boo xam ne la cay dëkk ëpp na cent personne kenn ku ne sa mat la dafay sës ci mat la sa morom nga xam ne boo ko seetee daanaka day tolloog sa tëdduwaayu jëmm dëgg dëgg rek am na nga jël say daal dugal ci ron bi. mooy comme ca comme ca Muna. comme la xew ca Muna. léeg-léeg xew tamit ca Arafa. waaye sax naa bi laa ñëw ci mat la yi loolu bu la fekkut nga am xam-xam ak jikko ya sa nekki nag ñu ngi dana métti mais da dem moment boo xamante ni sa tuuti leen soxlaati mat la mais da ngeen di tëdd ci ay moket wala ngeen tëdd ci ay basan nekk fa yendu fa ba seen kii ba jot loolu muy Arafa war a ñëw kon li ëpp solo ci aj gi ci yóbbal mooy xam-xam ak jikko. yooyu ñaar boo ko defee muy si sërité bi ñu jëbee nga njëkk a takk rek dana dana yomb xam-xam bi dana la mën a gunge ci naka la ñuy defee aj gi lañ lañ lañ ci war a dugal lu ca bokk lan lañ ci war a génnee lu ca bokkul ndax xam ko rek ñaar koy xaar dugal ci lu ca bokkut mbaa mu génne ci lu ca bokk te mbir mu ne boo ca dugalee lu ca bokkut mu yàqu boo ca génnee lu ca bokk mu yàqu jaamu yàlla gi daal nanguwut loolu la ca bokk rek ngay def euh, ña su ko def xam-xam boobu nag jikkoo koy gunge lu sa xam-xam bëri bëri boo amul jikko doo mën a nekk ak kenn mm. te loolu tamit dafa bëri te lu lu bon a bon la te lu ñaaw a ñaaw la bu paree nag ñu seet kartan gi kartan gi dana ci am solo bul toog rek sama yaay dama bëgg mu dem màkka seetal aas bi mu toog mm. seetal liggéey ba koy xaar foofa seetal ñi ngi koy ñi ngi ko war a yëkk teg ko ci seen loxo mm. lan lan leen di ndax yéen ñii da ngeen ngeen jànkuwanteeg coono yu métti mais gis naa ngeen am ci xereñ gu am am solo. Hmm. di ngeen jël ñoo xam ne ay mag lañ. berleen berleen. Hmm. tël leen seen kiiw bopp. troisième âge waaw troisième âge ak ni ngeen def ne bu ngeen buñ ne bis la tey la tawaaful ifaada. Hmm. ngeen ne yéen mën ngeen a xaar ngeen a yóbbu yéen ngeen demee ba affaire bi passé xam ne tawaaful ifaada bi jeex na. Euh, kaaba gi xaw naa fiir ñu encadré leen yóbbu leen. loolu nag nekkul na ñëpp a ko man te tamit lu méttee méttee métti la kon kartan gi mënu cee ñàkk waaye bi ci tegu tamit mooy xaalis bi xaalis bi fokk tamit jàngale ni ñu koy yoree nga xam ko carrément xam tamit nu ñuy sa yoree sa xaalis waaye léeg nga dem rek lu la romb nga jënd lu la romb nga jënd lu gis mu rafet nga jënd yow sax bala ngaa dem euh, Madina ba nga nekkee Madina parce que jënd nga sérité bi yëpp nga bëgg ko dugal ci sa kaar bi nga war a dugg ak loolu na muy laaj loolu da ngay sonal tamit nit ñi léegi tamit sa xaalis jeex nga am problème te foofa da ngay mujj indi problème ñi nga xam ne ñoom nga nekkal kon daal dama doon ubbi rek Euh, am yàlla imaam Ahmad. Hmm. waaye ma bàyyi nag loolu nga xam ne sos naa ko. ma bàyyi la yow nga mën koo sof gën koo mën a farañ fànce hmm. ba mu gën a yaatu ci ñeenti yóbbal yooyu. Hmm. waaye muy ñett yi ëmb ñeent yi rek. mooy xam-xam bu ëmb jikko ak kartan ak maanaam am-am. ñett yi daal bu duggee danañ mën a tax dugg ca wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa. kon euh, al imaam Ahmad. Euh, waxtaan wu am solo ndax lii. ku ko dégg te fekk demaguloo di nga xam fooy teg sa tànk ku mës a dem itam booy demaat beneen yoon di nga am beneen feneen foo teg sa tànk fu bokkul ak fu jëkk fa te loolu mooy njëriñu waxtaan wi euh, comme ni nga lay taayalee imaam Ahmad Diop euh, dama bëgg mu duggee ci ak benn bunt boo xam ne dañu koy tàmbali ci état bu Médine selon seen expérience bi ngeen am ci ajug màkk bi ginnaaw bi laaj bi war a préparé li mu war a préparé ba dugg na avion wàcce Medine war fa am xëy na juróom-ñetti fan xëy na juróomi fan xëy na ñetti fan lu ko yàlla dogalal mu am foofu étape boobu selon seen expérience ci agence Maréga voyage bi yan yan yan yan amélioration ngeen def yoo xam ne noppal na wàññi na coono yi nga xam ne ujaaj bi doon na ko am ci étape boobu. jërëjëf alhamdulilah rabbil alamin Saz Hadi ak Saz Hassan. هل هذه تمكن أختان لك؟ إني دليل من تزودوا فإن خير الزاد التقوى إن يالله سبحانه وتعالى صنتنا منه وديوبل وخنا نيوبلي وخنا نيوبلي وقن موي ني لغن تاخول غا باي لا سي ديس ولا غا ساكن خير الزاد لوي آه، نك دانك امنا ادي ما نخا ني لي سي ديس نك موي آه، لي نلاج براتيك براتيك بي نك Euh, du ujaaj bi dong maanaam ki nga xam ne moom mooy aj dong hmm. waaye du it voyagiste bi dong wala borom agence bi hmm. looloo tax euh, fi ne nii fu mel ni Maréga voyage euh, daanaka coono yi taxaw na hmm. réunion sur réunion réunion suñu réunion commencé nañu lan moo tax mooy jéem a fexe ba ujaaj bi li nga koy laaj nga teg ko ci loxo ujaaj moom jéem a la fexe ba Euh, dimbale ko yow mi nga xam ne yaa jël alalam yow mi nga xam ne yow yaa ne yaa ko nar a yóbbu pour mu dem def joxe farataam fexeel yow nga taxaw ko njëkk hmm. ndax bari ci loo xam ne ni mu demee mooy nii njël waxee rek hmm. nit ñi ñu bari sax seen jàngum julli sax ñu gën a jàmbaar ak jàngum koor ñu gën a jàmbaar hmm. waaye kitaabul xaj ji waxuma la euh, amatu naas. ñu jàng sax bari ci ñoom. koo leen ci laaj arkaan yeeg nagam dañu jaxasu ko. mango wala ñu ba ñu ko jàngee dañ ko jàngoon ci risaale rek. jàll dem seen yoon. <laughs> jëfeewuñu ko yombu leen. ñu mujj fàtte ko. Mm. donc kon di ko séentu ci ujaaj bi te yow parewoo pour jox ko li koy xaar lépp. Mm. loolu léeg foofu la jafe-jafe yi nekk. Mm. moo tax fitna bi maanaam fexeel njëkk koo gàddu ñun commencé nañu. Euh, li ca des ne bu ñu ñëwee nag euh, Madina li ñu doon jàng si lañuy ñuy jéem a fexe ba wóoral ko xamal leen ne ba léegi ci préparation ak lañ nekk armala bu leen hmm. tàmbaleeku foofu li ñu fay mën ci liggéey bi ak njàngale mi sax daanaka dañ ko mën màkk ndax màkk fitnaay liggéey bi hmm. ak jaxasoo beeg ñàkk place ak xataayu hôtel yi hmm. waaye Madina toujours Marega Voyage day fexe ba am hôtel boo xam ne dana am saal bu yaatoo yaatu waaw wala lekkukaay ba ñu déggoo ñi nga xam ni ñoom ñoo ñu koy jox ci waxtu yoo xam ne nag dañu koy jox bu boobaa li ñu leen doon jàngal fii chaque semaine ñu dajeek ñoom benn yoon wala ñaari yoon di waxtaan ak ñoom di leen jàngal at ji dañuy dem fële nag xamal ni ñu ngi leen ci waaj jub du ñu wax ne jàngaloon nañ leen ko acca mm-hmm. waaye fa la ñu koy révisé waat mm-hmm. di leen ko jàngal par benn benn di leen déglu it ak seen i laaj mm-hmm. rawatina nag bis yu njëkk yi nga xam ne moom la ñu war a sonal rek ndax ab ujaat moom mm-hmm. bari na ci ñoo xam ne surtout ak âge bi mm-hmm. li nga leen wax fii fàtte nañu ko waaw bu ñu ne cëpp Madina jàpp nañ ne tàbbi nañ ci bi seen commencé commencé baax wala mu commencé yàq waaw léeg-léeg nga te ak mag moo xam ne euh, ndeysaan dañu demoon di siyaare euh, fële ca masjidu Quba mu sonnoon lool tension bi jóg mu diis ba sonn ñu bàyyi ko ci biis bi dama jékki ñu woo ma ne ma te dañ ko bàyyi biis bi pour luy yoonal ajam ndax aj baa ngi koy xaar ca mag hmm. hmm. waaw mu jékki-jékki ñu woo ma ne ma daw sëñ soxna saa ngi ci jooyu mett ba ma ñëwee ne ko yaay lan la mu ne ma waaye xanaa ñëpp ñëw fii ba Madina di def seen faratay ak man ma a la dellu te def ma sama farata waaw xam nga kooku loo ci mën lu dul rek delloo si ko jàngalaat ko te loolu répété nga ko répété waat ko répété waat ko répété waat ko fii waaw mm. ñu nee ba ci pratique bi day laajaat beneen li moo tax li ci gën a am solo moom daal ñaar yii la mm. communication bi jàngale bi mm. waaw communication bi te communication bi ne ci wàllu jàngale saf sap waaw ujaaj yi di la mën a gis di mën a wax ak yow laaj jàmbat seen question nga fexe ñeme lool leen tamit ba nga xam ne du ñu rusalaate hmm. ndax am na noo xam ne yow mi nga xam ne xëy na tane leen ci téere yi hmm. boo ko minimiser hmm. yenn question yi mbaa nga reetaan ka ah. tëj buntu keneen ku am kersa dootul laajte dootul laajte waaw ah. mais yow ne magum jëm am ay sët dina la laaj nu ñuy sangoo farata te doo ko ci xas doo eh, ko ci lifin waaye da ngay nangu rek jël jàngale ko jàngale boo xam ne am na moroomam mel ni moom te laajtewul jëriñuwaale ci hmm. am na koo xam ne ma ngi ko daan def waaye xamul nañu koy defee mu jëriñuwaale ci hmm. am na koo xam ne ma ngi ko daan def waaye fees dell ak sikki sàkk ak wasoosa hmm. nga xamal ko xelam dal ma nga xelam dal état bu Médine bi daal noonu moo ñu fa préparé bu màkk bi aywa kullu ziyaar yi kullu ziyaar yëpp dañ koy def mais dañ leen xamal ne tàbbagu leen ci li leen tax a jóg waaw li gën a rëy fii mooy jàkk yonent bi salaa sam dem ci bàmmeelam boobee ziyaar ko ñaanal ko te loolu taxagul mu bokk ci ponk ak yaaj aywa su ko defee ànd ak ñoom ci yooyu yëpp di leen jàngal di leen teg te jigéen ñu leen di booleeg jigéen ñu leen di jege góor ñi ñu leen di booleeg góor ñi di jéem a xool tamit nan la ñuy boole ñi tane ak ñi ñu tane ñu mage loolu mënuñu liir mënuñu bind xamuñu dara dañuy jéem a teel fexe ca Madina ñu boole leen ak bind mën a bind mën a liir su ko defee nga xam ne lu leen rëcc ci jotaay bu mag bi rek bu ñu demee seen néeg mën nañ ko waxtaanee ñettane surtout intellectuel yi di jàpp mën leen a dimbale euh, loolu daal moom mooy suñu taxawaayu euh, Madina ba bis bu ñu fay nag préparé armal ne leen nag armaluñu dañoo sol yëre armal yi hmm. war a dem euh, dul xale fa armale junj euh, nga lu am solo muy euh, catégoriser ujaaj yi ak euh, elaaji yi selon seen critère bi ñu leen di béré maanaam troisième âge yi yenn saa yi léeg-léeg nga gis ci ay màgget yoo xam ne daanaka pour dox diggante fii ak daanaka cinquante mètres problème lay doon ci ñëw mais dama daan gis dama seetlu woon ne ñooñu da leen daan ber non seulement ber leen mais wutal leen ay pousse-pousse yoo xam ne ñoo leen di yóbbu liggéey boobu est-ce que euh, indiwul benn coono boo xam ne dafay nekk coono plus euh, coono bi nga xam ne organisateurs yi am nañ ko wala dafay fekk bokk ñu sóoraale woon ki ci seen programme ba nga xam ne du ko bi lu bare waaw liggéey boobu bokk na ci liggéey yi gën a jafe ci ñëpp euh, dalee ci imam mais surtout ci docteur. docteur ndax du wéeru ci mission bi ak délégation bi donte am nañu ay médecins taxawu nañu waaye dañuy ànd ak seen médecin ñooñu dañ leen di teel a recensé fii. ci programme imam ak programme depuis Dakar depuis Dakar ak ci programme médecin bi médecin bi da leen yor ñoom ñëpp ci ordinateur am kenn ku nekk mu xam lan mooy sa âge mm-hmm. lan mooy sa jàngoro yan garab ngay faral di naan loolu lépp mu def ko su ko defee ba pare Euh, am na fu ñuy gën a dollee ko ci randonnée yi nga xam ne euh, coach Marega moom moo koy def Moussa euh, foofu tamit dañ leen fa yebal ñu dem kooka dina gën a xam ci wàllu pratique léeg foofu lay toll woo docteur mbaa mu woo imam ah imam am naa fi ko jaaj boo xam ne day nañu ko bàyyi xel waaw nañu ko bàyyi xel parce que lii mooy problème am lii mooy problème am mooy problème am donc su ko defee bu demee foofu nag léeg il faut nga sóoraale moo tax ak maîtriser ko jafe na. Mm-hmm. muy ci wàllu koppar gi muy ci wàllu lépp am na yoo xam ne fii du fi feeñ cocc ci def hmm. bu ñu demee fële nag nga doog a xam ne kii ci ñu la bokk hmm. mbaa mu lànk ne moom bokkul ci troisième âge bokkul ci ñuy jël pousse pousse bu ñu demee fee rek tànk yi neew yi commencé juróom yi lifin hmm. ñu def ko ci ah, ay ñoo xam ne sax seen bopp mujj léeg-léeg sax day tourné ñoo xam sax dañuy waxat mangoog daanaka at bu nekk nga tombé koo xam ne ndeysaan boobu dem na waaw ah, dañuy na cëpp Madina rek leer bi dugg ko <laughs> ëpp ko doole mm-hmm. waaw ak nit ñu bari ñeek mm-hmm. li muy gis mm-hmm. rek euh, mu commencé wax naan ana kaaru 22 bi ana damay damay ñibbi <laughs> damay ñibbi waaw ah, loolu bari nga ci loolu loolu tamit léeg-léeg euh, coono la boo xam ne jar na waaj bu baax a baax a baax a ndax dana la yee guddi trois heures du matin dana la teree nelaw guddi yow ngay wëri da ngay toog ba trois heures du matin ñu woo la ne seen benn ujaaja ngi fii. léeg-léeg bañ a wax ak yow léeg-léeg muy werante nga ne ko ñu ngi Madina mu ne maa ngi Parcelles. Hmm. nan ngay def ba indi ko. indi ko Medina loolu tamit bokk na ci li nga xam ne. ak dimbali nañu. bu baax a baax a baax a baax. am na ci koo xam ne bi dafa lànk kenn mënul wax ak moom. Hmm. waaye bi ñu toogee moom jaaree ko foo xam ne gisoon na Abdoul Kader mosoon fa jaaree beneen mm-hmm. ko jaaj. laaj ko yow fan yii euh, Abdoul Kader Diop directeur. Mm-hmm. Euh, amoo woon benn programme amuloo lu la neex. Mm-hmm. ah kay lan la sama doom doomu jigéen moom moo jëndal ba mu yónnee bii. <laughs> ma fan nga versé woon. ne ah Marega Marega voyage. waaw après noo def. mu ne demoon nañu aéroport. après fu ñu wàcc. demoon nañ ma di. da koy def. Ah, waaw indiwaat rek mu laxasu ne mm. maa ngi Médine léegi. waaw mm. mm. imaam maa ngi Médine. imaam maa ngi Médine. <laughs> Euh, moo tax euh, daanaka lépp loo xam ni dafay saytu nit rek. muy ci ko muy ci médecine muy ci. psychologie muy ci psychologie lépp. war ngaa war nga bàyyi xel. ndax nit ko fa fekk. Euh, balaa may ñëw ci oustaz Adi sax. damay fàttaliku. ni ngeen daan doxalee. maanaam bu ñu waxee ne acca. ujaa ji préparé leen ñu ngay dem ci jamratul aqaba foofu daanaa gis ngeen di def ay effort bu baax a baax pour wax ak ñoom mais bu ngeen di dem itam di ànd ak ñoom jiitul ak avancé rek taxawal ak bul dem bu ngeen di sànni dem leen ba ci kanam bu leen seen rek ngeen sànni maa ngi fàttaliku ni ngeen doon orienté noonu euh, loolu expérience moo leen ko may wala déet parce que da ngay gis ne orientation boobu bu mu ko fàttale ko moo gën a économique maanaam au lieu nga gis jamono bi nga song ko. loolu mbooloo moo lay baare. Mm. mais da ngay mel ko ko gisul. Mm. yow sax noonu nga ko doon waxee. Mm. nga dem nag ba ca kanam nga sànni rek dal boo sànnee rek yaa nga taxaw di xaar sa morom. loolu itam jar na. dëgg la Imam Hassan loolu euh, expérience moom moo ko joxe man daanaka dama fekk euh, Marega voyage ñuy doxalee lu fukki at. Euh, mu ngi nii may ànd ak ñoom. Euh, bis bu njëkk bi jaaxaloon na ñu ngi jublu ci jëmre yi. war a sànni. <laughs> du ñu ko song ñëw ba ci digg bi ñu ko song ñëw ba di ko jeexal nag song. waaw hmm. foofu li ñu am yaa hmm. sànni benn sànni pour am ñaari jubluwaay. Hmm. moom moo fa mooy. facilement ngay sànni li gën li gën euh, ki yóbbu ay nit te seen sécurité yitteel ko li ko gën a def xalaat foofu. mooy ñu dajaloo bañ a réer. Hmm. mooy ñu bañ a réer. Hmm. réer ci biir foo xam ne xeet bu nekk ma nga fa. Hmm. day doy waar. doo gis koy gis koy waxal olof wala dàng léegi su ko defee kon àndandoo bi jamra bi nekk nii. ñun ñuy ñëw nii ba fi jamra bi mujj. doog a sànni mooy dajaloo nañu déjà. groupe bi yëpp waaw mooy groupe bi yëpp. mu mel def dafa xaw mel ne pare nañu te fekk commencé na mm. suñu sànnee rek ay génn day dajaloo. waaye imaginer su fekkoon ne dañoo ñëw dugg ci biir mbooloo wala ñu commencement bi nit ñi ñëw tamit jax rawal rawal ci am ak réer. aywa nooy mën a nag loqatee nit ñi say say. kenn kenn kenn moom day indi jafe-jafe. Hmm. Ah, noonu expérience bu ama am solo la. bu hmm. am ah, njëriñ boo xam ne. Hmm. Ah, dana dajale say ojaaj te da nga sànni ci jàmm ndànk. te toujours maa ngi gis ngeen doon insister sax ne maanaam bu bu ñu sànnee ba pare. xam nga ki sànni bi pare mën na jàpp ne xaaral ma demaat ci beneen bi bu dee yeneen jamre bu ma sànni naa xaaral ma dem sànniwaat beneen wala xaaral ma avancé mais da ngeen leen daan canaliser ne bu kenn dem. ki pare itam na xaar ki parewul ngeen door a songaat bu dee beneen jamra bu ngeen door a songaat beneen bu kenn dem bu kiyaatee ngeen defaat borok demaat songaat bële. moo ma daan jaaxal bu njëkk su ma déggee. ñuy wax ujaaj ujaaj xam nga ci arab day reelu waaw mu ngi mel ni nga naan euh, chevaux bi ci français ñu jàng français <laughs> chevaux yi nga naan chevaux bi benn cheval nga chevaux bi chevaux bi day reelu <laughs> waaw mais bi ma xoolee dama ni xanaa yàlla moom moo sax euh, ñuy njëkk euh, maanaam organiser ak wolof ne dafa mel ni <laughs> hmm. foofu boo fa nekkee nekkatoo kenn. mbooloo mi la daal ujaaj ujaaj moo tax ujaaj bii la ñuy wax. li tax ma xam loolu ne réeré wuñu baat bi cosaan bi bu dellu see ñu ne ko alaaji. waaw waaw bu dellu see kon lu tax bu demee fee rek naan ujaaj dafa mel ni esprit mbooloo boobu daal. waaw bëgg def ci lépp ba jëfandikoo ko ci baat bi. Hmm. Hmm. Hmm. muy euh, muy muy lu am solo Oustaz Hady yaa ngi euh, seetlu ne toujours dafay am solo. doxalin wi ci euh, bu ñu ne par exemple fii Jamra walla wala fii Arafat wala euh, Nangam doxalin wi am na ci solo mais mu ànd ak fiqhu ba itam ak àtte ba ci war a war a àndal mu mel ne ñaar yooyu itam yaa ngi ko doon seetlu ci ci ci jotaay bi nga xam ne ki nga xam ne euh, sànni bi échappé na ko bu mu yaakaar ne àdduna tukki na am na ay dabaatal yu mu mën a def am na yoon lu mu ko may boo sànniwalee ci bés bi am nga droit demaat sànniwaat fële te loolu. en général Sénégal yi dañu yaakaar ne lu ñu lu nit ñi def daal bu ma ko defulee rek sama acc yàqu na loolu itam as euh, aspect boobu itam wàllu fiqh bi. Hmm. ànd ak doxalin bi amoon na ci. am solo waaw Xasan euh, euh, aji nañ ay yoon yow mii tamit tabaarakallaa aji nga ay yoon te na gën a bëri. Hmm. boo àndee waa Maréga yi rek da nga yëg ne am nañu expérience. bu yéemee yéeme boo xam ne jagleel ak yàlla la bu leen bu leen jagleel. Hmm. ndax li nga ci wax noonu. ne bokk na ci expérience bi tamit. ñi leen di encadré ñi encadreur yi du ñuy sori seen i ujaaj mhm. foo gestoo rek gis leen loolu tamit yàlla gis naa ko seetlu naa ko ci seen liggéey mhm. ñoom ñëpp bu ñu yeggee minan fi seen ujaaj yi tëdd foofu la ñuy mhm. te loolu néew na ci gaa yi nag def waaye ñoom boo demee yaa ngi ñoom ay bokk mat la yi lekk lekk yi yéen a koy bokk duñ la riir benn jamono waaye xam nga léeg-léeg dana am ku la encadré ngeen dem ba foofa ji am jamono joo xam ne fi nga ko soxlaa doo ko gis. waaye nag wax dëgg yàlla ñoom amul benn jamono boo xam ne nii. danañu réer seeni i ujaaj loolu seetlu naa ko ci. ñaareel bi tamit xereñ ji nga xam ne yàlla dimbal na leen ko ci. maa ngi koy door a seetlu ci aj gi gis naa ci koo xam ne sa silmaxa la euh, silmaxa boo xam ne yàlla xañ na ko ay bët. waaye terewul al oustaz Xasan hmm. ñoom ñi encadré ko ba mu def ajam comme yow njàccaar bi dëgg la ni nga ko ni nga ko defee te loolu sax man mi yéem na ma hmm. waaye lépp maa ngi koy seet hmm. gis naa ci koo xam ne ñoo xam ne sax ay màgget lañ waaw ko ñoo xam ne parce que xam naa ne juróom-ñetti fukki at buñ ko amul tamit duñ ko duñ duñ duñ ko duñ ko sori surtout am na ci koo xam ne dafa màgget lool waaye ànd ak loolu lépp ñoom encadré nañ ko jàppale ko jàppale ko ba yow mii jàpp ne ko am kartan nga la nga doon def lépp moom def nañ ko ñoom def nañ ko hmm. kon ñoom euh, macha allah yàlla may na lañ xereñ benn hmm. waaye tamit am nañu farlu lool am nañu am nañ am nañu taxawaay am nañu yitte ju sëkk hmm. ci seeni ujaaj du ñu leen di sori foo leen soxlaa gis leen buy coono tamit bu mën a dal yaa ngi ñoom a koy ànd bu fekkee tamit bànneex la yaa ngi ñoom a koy ànd waaye xam nga léeg-léeg Euh, bu jafe-jafe amoon nga gis nga nga nga gis gisoo kenn ku la encadré sa xol day gën a tàng. Hmm. waaye bu la wóoree na yow li dal ci sa kaw. Hmm. tamit yaa ngi ñoom ñi yéen a ko bokk. lépp hmm. la naqari bu fekkee am nga xel. yaa ngi koy seetlu keroog ba ñu sànnee suñu jamra ju mujj ci. war a dox. yàlla dogal ñi réer. xam nga jàppoon nañ ne jamra jamra ju mujj ji. fi ko sànnee ak hôtel bi soriwul. waaye nag yàlla dogal màkkal moom neexut a xam. bët bu set boo demee rek mën nga mën nga réer yàlla dogal fi ñu waroon a waa jàdde jàddee wuñ fa fi ñu waroon a wàccee ñi mujj dox lu lu sore sore am na sax ñoo xam ne xaw xaw nañoo sonn waaye ànd ak loolu ak coono bi yëpp dafa mujj soppeeku bànneex ndax boo gestoo ñoom ñoo ko boo gestoo rek gis leen hmm. loolu nag bu lu la ci mën a dal su fekkee am nga xolu jullit am xol bu yaatu da koy da nga koy da nga ko da nga ko da nga ko da nga ko da nga koy war a mën a mën a muñ xam ne moom ak liggéey bi tamit ñoo ànd te yàlla tamit loolu la ñu ci dëral mënu leen ci mënul leen a aj lu dul ngeen ngeen jànkuwaan ci seen coono manta ne waaye dem naa màkka na ma ko bëgg yoon def naa ko loolu tamit dañ ciy bàyyi loo xel ujaaj yu bëri bul jàpp ne man versé naa sama xaalis jox naa ko ci compagnie bu mën a doon kon daal man sama njaan wàcc na nangam ak nangam déedéet fokk nga sonn màkk kenn mënu ca joxe sa farata gi ni nga ko bëggee ak ni ko yàlla bëggee siqul anfus siqul anfus mënu caa ñàkk mhm. lam takunu baalixi illaa bi siqil anfus mhm. loolu moom man man man man man man mënta ñàkk mhm. waaye nag ñun Sénégal yi yàlla moo ñu nattoo gaaw a ñaxtu gaaw a gis sa bopp boo wàccee sax première coono bi ci mën na laa dalee sax fii ci aéroport mën nga ñëw yàlla dogal vol bi tardé. ñu ñëw toog toog bi yàgg nga commencé ñax te dugg ko sax ci liggéey bi. léeg-léeg nga dugg ci tamit dem ba wàcc ci aéroport bi. formalité yi nga fekk vol yu bëri ñëwoon ndox mu am rang nga ne. te su boobaa tamit rang boobu mën na faa yàgg. man nga ñëw yàlla def dogal nga am fa ñeenti waxtu. léeg-léeg nga def fa juróomi waxtu ñun sax yàlla dimbal nañu. yoon bi dañu ni mu gaawee ñun suñu gis bu gaawee noonu. Hmm. dañu ñëw rek presque presque presque dem amuñu benn coono. exactement yëpp léegi nanga nga commencé ne man nangam laa joxe woon nangam laa joxe woon. Hmm. su ko defee commencé ñaxtu. Hmm. kon damay wax ne sax man malaaka mi ñu yàlla ne dugalal ma Sénégal yi yàlla jaana man yaakaar naa sax dana am problème. may ragal mu dugal ñu fa bu ñu bu ko waxuñ ne ko dugal leen xel lii na wala Firdawsi. si li dana dana coow dana bëri pourtant immobilier moo gën a gudd. dégg naa gaayee fañ nekk moo gën a neex. kii nekk fa ne waaye man de vraiment li ma julli kii ne ko man li ma woor na kii ne ko man li ma dem màkka ñu nekk fa di ñaxtu ba yàlla na fii nag laa yasmauna fiihaa laghwan wala kitaaba loolu rek laa ci xaw a ragal kon fokk ñuy yaatal dënd yi xam ne ki la yóbbu pour nga aji parewul pour defal na lépp am na ci loo xam ne lu la dimbale dimbale yow yaa koy war a war a war a war defal sa bopp yenn yenn yi tamit bu ñëwee gaar ci aj bi ñoom ñuy sóoraale ko yow sóoraale woo ko woon nga am ci dënn bu yaatu ne mun naa am yàlla dafa ma nam ma yokkal sama payoor gi rek moo tax coono bi gën a bëri moo tax màkk boo fa nekkee xasan loo sonn sonn sonn sonn da nga ko war a gën a sant yàlla gërëmee ko ndax ñëw nga ci place boo xam ne bàyyi nga ay millions yi nit ñu fi bëgg a ñëw te ñu fa ñëw kon jëmmi ñëw ga rek même boo defutoon dara ñëw wàcc ca foofa na noyyi ca jaww gi da yonent bi jaww noyyi rek même boo ajutoon rek loola doy na xéewal doy na teraanga su boobaa coono bi nga sonn dafa war a soppeeku bànneex mm-hmm. su boobaa boo amee yëgati sa xol sa bànneex bi moo war a nopp sa coono bi ba dootoo yëgati dara mm-hmm. kon nag loolu maa ngi koy waxal ñi encadré ñëpp ne dëgg dëgg sonn nañ ci yu bëree bëri yoo xam ne ñi ñi ci bëri ñi leen ñi ñu yóbbu ñoo leen koy teg mm-hmm. kon nag fokk ñu yaatal dënn yi bu baax a baax waaye daal yëg naa ne ñoom yàlla may na leen ci. Mhm. ak xereñe macha allah. Euh, ndax li ma la wax ni ndax man lu mhm. ma dem rek dama ci jàngaate lu bëri. exactement aji nañ lu bëree bëri mais mosumaa gis nag silmaxa boo xam ne ci yi ma yi dem yëpp nag. silmaxa boo xam ne yàlla def dem na. te amul benn jafe mhm. wax dëgg yàlla. xam nga ni ko xam naa ni mu mel. nga yóbbu fa silmaxa mu wër kaaba gi. sànni jàmm la mu war a def yëpp. hôtel baax yëpp yaa ngi koy gis. yow xam naa ne sax loolu yow da <laughs> seetloo ko. <laughs> Mmh. dégg bu njëkk. Mmh. waaw day faral di am. Mmh. ci koo xam ne moom sama dëkkandoo la woon sax euh, Thiès. doom bi ñëw day gis day gis ndax doom ñoom jàpp nañ ne bu ñu nee silmaxa la du dem waaw waaw waaw ñu pour mu mën a dem daal waaw ndekete yoo oh, dara du ko gis <laughs> bu ko jëlee fat ko suma néeg hmm. euh, lépp waxuma la sax mbiri xaj bi waaye leneen li ci des yëpp xamaale moom laa ci moom waaw euh, ndax ñoo xam ne fekk nañ sa jamono yi waajur hmm. ñooñu doom nga ci ñoom hmm. boo defee euh, lépp ñoo ko mujjoon di ko taxaw ba mu matal ajam moom si ممل والو كومينيكاسيون دال والو كومينيكاسيون بي اك خمال نيتكي لي مو ورا خملو ام سولو لا تي تي اجي ممل استاذ ادي جينجي نا سانك سينيغالي اك سين بيرو نياختو تي ياكارنا تي اج دانيو ورا خامي نيار نيغا خامني اج نونو لا مل اك ليغا خامني بروبليم لا يان سايني داني جاخاسي ليب ديف بروبليم تي فك امنا فو خامني اج نونو لا مل من مسنا ديغ تي بن اليمان ci télé ñu ne euh, am kuy ñaxtu mu ne maa ngi nii réer naa gisuma kenn yow réer nga kay sànku nga yow kay mënoo gis kenn xanaa kay balaa ngay fi gis kenn kay nga feeñ <laughs> mu ne réer réer naa gisuma kenn il faut daal nit ki xam li nga xam ne problème la distingué ko ak li nga xam ni mbir mi noonu la mel il faut yaay xam noo koy noo koy adopté xasan daal bu bu nit ki yóbbaloo bu defee yóbbalam daal takk euh, sërite yi muy yóbbalu daal bu ca takkaalee jikko ji rek mm-hmm. Euh, dana yomb ci lu bëri. Hmm. wax naa leen na fi nga jëkk a départ yaa ngi bokkaate néeg boo xam ne ñeenti nit la te yow nga miinoon sa néeg a bopp. Hmm. yaa ngi bokkaate toilette boo xam ne yéen ñeent a ko bokk te waroo cee loro waroo cee lore. Hmm. te yaa ngi miinoon sa bopp. waaye dana am foo xam ne boo fa yeggee sax toilette boo xam ne lu ëpp mille personnes ñoo ko bokk. ca ca Minam yaa ngi ko fay gis. ak ca Arafa. su boobaa tamit bu fekkoon sa jikko ji nam war a mel melu ko rek dana xaw a doy waar. nga yàgg ci toilette bi am na ñoo xam ne ñu ngi ran toog di xaar nga nekk fa jël sa bopp mel ni ku nekk sa toilette bopp loolu tamit hmm. dafay nekk dafay nekk lu xaw a lu xaw a waar lool te yooyu moo tax daal li ci ëpp solo daal hmm. al imam hmm. mooy mooy mooy mooy ci yóbbali daal jikko daal jikko daal mooy lépp jikko daal lu mu dugg rek euh, dana ko raafal ko rafetal ko loolu daal mooy li ci li ci ëpp solo te euh, mel ne bu ñu delloo ci alxitaabul quraani imam ahmad da ngay gis mu mel ne yàlla aaya ji sax te période bi la doon waxal jamono ñu doon wax fala rafasa wala fusuuqa wala jidaala fil xajj ak mbooloo ma ne mu bari yëpp mu tere ñu loolu kon côté jikko bi am na ci am na ci importance parce que léeg-léeg nga dégg kenn bu ñu nekkee ci di tawaaf ci kaaba gi dinaa ñëw itam ci tawaaf boobu ak ni ngeen ko organisé waaye tawaaf bi léeg-léeg nga dégg ku lay nettali ne ba ma concoo naar ba waaw ngay tawaaf ma ne naar bi dafa kii ma conco naar bi انا انا قيم يو خم لي مول ملي كوكو كي واخ لول دا فاي ملني امنا لو مو مانكي ني خم لان موي جماعه اك بنو جولي ني اك يين سا بوك لول ني يين سا مورو دوم حسن عند ليلي دا فا ام لو خمني دا فا جار فورمي جامبو دا جوف جوم سي يالا جامن دا يوسف دا جاخسو واي مي دان ام مولي لول ني دا فا دان جيب جيلي سي xudwa waaw da ko daan dundandoo ki nga xam ne moom la jiital ci diineem doo mm-hmm. sëy mm-hmm. ndax dundandoo fi léegi amul am na leçon yoo xam ne nit mënu jàng mm-hmm. mooy jafe-jafe bu ñëwee keroog sëriñ bi nan la def loolu pour nga fekk ko ci téere nii. day jafe dëgg dëgg day day day jafe. suñ mën na laa nag xadis bi. waaye jafewul waaye nag ba jëfe xadis dañoo xamul ne euh, li ñuy wuti foofu. yàlla la koy joxe ci ñaari anam. te la mu ci joxee benn anam bi daan naan defal lii beneen anam bi nag préparé naa la def lii. def ak defal aywa. te lii nga xam ne moom ngay amee ca la mu lay def moom yàlla dala ko fa teg. bul ko xeeb gënu la néew la nga xam ne da koy amee ca la la yàlla def loo nga def ko. Mhm. boo xoolee avec histoire ak ñu muy wax fala rafata hmm. kon moom sax indiwul sax defal lii defal lii waaye bul def bul def lii nag moo tax yooyu yëpp boo ko xoolee muñ mooy dimbali nit hmm. te muñ nee nañu bàyyi bàyyee kaarit hmm. ci lu metti bàyyee def ci lu yàlla tere dafa mel ni moo fa ëpp solo defal nangam defal nangam jaar jaar ak bul def lii fala rafata laa fusul ko def ci wàllu wax wala fusuqa caay caay wala jidaala fil xajji wérante lan moo tax ndax luy yëngal xool dafay bari. dafa bari diis diis ak su nekkee ak si. so euh, boo delloo ci histoire ba ca jamono yi maam Ibrahima alayhi salaam. ak soxna sa Haajara. daanaka doo dégg ñu ñu fi julli. ndax woor bi ñu ñu fi jëf. waaye muñ. waaw muñ ba ci sa daw ba mu doon daw Safaa ak Marwa muñ. muñ ba ca la fa bàyyi muñ. ba. la fa maam uh, Ismaïl ba ko maam Ibrahim alayhi salaam waxee dafa lay rendi mm, mm. mun jaabati kee yàlla da ko natt ndax dina mun ci lu métti mm. moo ko doom di seet ndax dina mun if almatuma c'est-à-dire insha allah moom aywa ñoom ñëpp mbir muñ ay tiis ay jafe-jafe ay nattu yàlla yëkkati leen ci ay maqaam yi. yu kaay ñun nag ñu ci bëri dañ dund sóoraale boobu. muñ boobu ba ci dëkk bi la jàmm. ñi jiitu. kenn ca ñoom daan na ca yaakaar loo xam ne yaakaar ko sax ci ñaari rakk lu mu julli naa ko wallaahi waaw ndax loolu lépp du ne kon kii dem di ak yi da ko wóor na li muy wuti am na lu ko ci yàlla jox ndax defal lii mu def ko mm-hmm. waaye am na lu ko ci yàlla di def mm-hmm. yàlla nag li muy def doo ko ne mm-hmm. fii nga koy def ci biir clim bi nga ma koy defee ci biir néeg bi nga ma koy defee la nga teg la ko ca naaj bi nga réer léeg-léeg ñi nga ko seqal lekk yi ñoo doyul. léeg-léeg nga bokk ak néeg koo xam ne yow mën naa am sax yaa ko tànn ndax ñun fii su ma rek a fii lañ leen commencé wax ku ne ñu wax seet nan la ñu. bëgg a bokk ñàkk a ànd. Mm-hmm. ñu partagé néeg yi nga kon kooku moom moo tànn ne kii laay dem kii laay dem ndeketee moom. tase nañ ci randonnée yi rek. wala hmm. déggoon na ko wala dëkkandoo nañ te mosuñoo dëkkandoo ne. Hmm. wala ay mbokk lañu mosuñoo dëkkandoo ne ba ñu dëkkandoo ne yàlla na ko la nga fekkee ko neneen noo nga hmm. tey kon boo xam ne yow. yow yaa ko bëggee noonu mais la ko teg. di la seet. léeg-léeg nag ñun dañuy la ñuy. waaw bu épreuve yi tàngee rek. nga ñaxtu. Hmm. waaw te diplôme ba nga bëgg yow. Hmm. diplôme bu <laughs> kawe kawe bu kawe la. ajjul ma loolu lay solo fa jaza ilal janna. na wóor kii dem aj. maanaam hmm. coono dana ko teg ñetti bu defee fi yaay fii douze mille aj amul loolu amul loolu dana ci am ak dana ci am coono ndax mënul am beneen arafat mënul am beneen kaaba bu naan VIP yi tey ñoom ñooy wër wala VIP yi seen kaaba nga ne le ci am dara. gis nga ni muy jógee fii nga jógee eh, ci hôtel yi. Mm-hmm. dem ci mën a nit ñu mel ni ay sardine. Mm-hmm. Eh, ñu dem Arafa amul sax mm-hmm. mat la. ñu dem Musdalifa amul sax moket. waaw ci poussière bi pënd bi ñëpp ngay jël sa loxo yi nga xam ne yow lu la mos a takk nga def nii ngay xoos suuf si di wuti xeer. Ah, ñëpp yam ci. nga xam ne faw coono. faw muñ tamit ci faw wàcc sa bopp faw damm. Eh, xam naa waxtu waa ngi ñuy dem sax su watul sax dañuy mujjee lépp euh, benn partie bi nga xam ne mooy laaj yeeg tontu waaye dama bëggoon euh, yéen ñaar ku ci nekk taxaw ci benn étape muy euh, bu ñu ne tey tawaaful ifaada nga xam ne kaaba gi day inondé ak ay nit nga indi benn groupe boo xam ne tuutiwul nga bëgg ñu dem def tawaaful ifaada boobu delluwaat saalimiin ak gaalimiin ci fa ñu jóge loolu référendum bu rëy lay doon waaye gis naa itam ngeen defee ci benn système boo xam ne da ngeen di sóoraale troisième âge yu Oustaz Hady wax ñooñu ngeen wutal leen ci loo xam ne itam dafay dëppoo ak charia heure ak jour boo xam ne ci la ñuy sànni ñële itam ñu def benn bloc boo xam ne toujours que euh, kooku nu mu tuddee xaw ma saa xaw ma lan. mooy kii ni ci kanam ku tey koo xam ne yàkkamtiwul. Mm-hmm. léeg-léeg sax ñun ñu nekk ci kii ñu ah yow dafa gaaw. ñu ne kii la taxaw ne non yow dafa gaaw. il faut dellu ci ginnaaw kee nga xam ne yàkkamtiwul. Mm-hmm. nekk ci kanam boo gisee si kanam la nga xam ne amul ko ku féetewoo kanam. Mm-hmm. loolu itam euh, jar na taxaw càmbar ko ba xam. Euh, nan lañ koy war a mën a mën a expliquer nit ñi itam ba ñu mën a parce que loo organise organiser. bu amee ñoo euh andu ñu ci loolu itam dafay créer créer problème. euh imam Ahmed. jërëjëf imam tawaf al ifada ifaada. tawaf al ifada bi bis boobu noonu nga ko waxee noonu lay demee. waaw dana seere ndax bis boo xam ne ñëpp ñu ngay ifaada jóge ca fële Muzdalifa ñëw war a wër kaaba Euh, dana seere ba léeg-léeg sax dañuy tëj bunt yi léeg dañuy yónnee message ci képp ku am numéro Arabie Saoudite mm-hmm. fees na bu leen dugg bu kenn yu bari ku fees na mm-hmm. donc yow foofu nga am noo taxawee teel a ba ñëw fexe ba bokk ci ña dugg bu boobaa laaj na benn organisation boo xam ne comme ni ñu ko waxee na waroon doon mu mm-hmm. yàgg il faut muy doxee ak tiit ak alal te loolu li koy joxe muy xam انما يخشى الله من عباده العلماء ليس والتشاك خم خم بابر الدلات لدول الخشية ودخ فخي بنو خم بنو خمي نكتا بجلنجي تخو أورغنيزيو بوبوبا دينا لنا تبير أغلتي بتير بانل ندخ لو دف دينا نخم لن وقت غرف وقتان بيانا ندخ ليلة دينا تخو بدن بشكار لاني أي إجاجة نني بخليني مدوك تبير نني kii jaarne kii jaarne kii jaarne lan moo koy indi mooy xamuñu lan moo tax ngay romb lii yow te doo ci taxaw te ñu gis ay nit ci taxaw masalan lu mel ni maqaam Ibrahim dafa am ñu bari sax dañu koy bëgg a def comme xajarul aswad te taxaw fa mbooloo mi romb mbaa ngi réer ci biir ñeneen boo leen xamalee ne bokku ci sant ñu ñu raay ko sant ñu ñu taxaw ñu fóon boo leen xamalee tamit ni boo yonent bi sallallahu alayhi wa na lii. waaw te moom def na nangam ji. waaw te xam nga ne moom du tànn lu yées yàlla du ko tànnal lu yées. mooy yow jot dugg nga euh, xajarul aswad mënuloo koo fóon waxambaane sax pour mu dem foofu jafe na. jafe na jigéen waxuma la mag. Mm. nga def nii bul jàpp ne perte nga daal. Mm. ndax yow ci ndigal nga nekk. Mm. te ka sant du la sant loo xam day manqué. waaw bul ñëwee kële ne am na lu mu amul. Hmm. ndax yow ndigal moo la defal lii. moom itam moom it egg na foofa mu def ko. Hmm. kon jàppal ne la mu am ëppalewu la. Hmm. te te sax dogu doguma la sax waaye télécommande euh, maanaam téléviseur poste téléviseur boo taalee ak sa loxo. ak boo taalee yëpp bu wuute image qualité benn benn la loolu waaw su ko defee di leen yee surtout nag di leen jox ci exemple yu mel nii di leen jege waaw di ngay gis ne pèlerin bi jëlee nga ko fu sori ndax yow ni nga koy jàppee yow mi miin di jàng bul jàpp mukk ne koo gis rek noonu la ko jàppee am na koo xam ne moom. daf koo kii rek ci waaw. waaye doon ay ah. kooku ma bu ma demee faw bu ma doon dinaa doon waaw boo ko dànkaaful rek ci xam-xam nag bu ko mën a convaincre. waaw rek bu rëcc bu rëccee nag. rëccu lay indi waaw rëccu lay indi am na benn at boo xam ne gis nañ koo xam ne. moom ndam la ko sax ndam la. Mm-hmm. kër kër bi ci ajar moom nee na maa tooñ sama bopp. Mm-hmm. ndax tegal ngeen ma programme. man maa bàyyi ba seen programme jeex ndax bëgguma dem kenn di ma topp ndax loolu tamit dañ leen ciy taxawloo. Mm-hmm. kenn wàcc mbooloo mi keneen di ko topp. mu bàyyi ñun ba ñu pare. mu ma dem song. waaw dem laal ne. doyulul day dem laalaat. waaw fekk ko ci loolu fekk ko ci ñu damm ko moom foogoon na ne dee na waaw donc kon dégg li ñuy wax discipline. Hmm, am na ci solo li ñuy wax dañu foog na ci armée la nekk waaye ak moom dafa bokk. ci nga xam ne say ponk mënuloo koo rafetal mukk te doo topp jaamuloo kenn nag yàlla ngay jaam hmm. waaye dama leen wax ne jullee ngi nii hmm. imam bi yàlla lay julli yow yàlla ngay julli julliloo imaam waaye boo ko njëkkee sigg wala nga njëkk koo sigg te tey ko julli yàqu ay wax kon it loolu ñu xam ne yàlla bu la santee mbir moo xam ne dafa ne nan la ca jiitu na am jiit bi da ko war a topp loolu tamit war nañ leen ci di leen yar bu baax jërëjëf euh, imaam ahmad xam na oustaz ali àgg nañ ci cappaandaw li mm-hmm. waaye dama lay euh, nettali benn anecdote après nga commentaire ci ci mm-hmm. wàllu xam-xam bi ak li ñu waroon def mm-hmm. dafa am ku ma nettali ne dafa dem màkk bi ñuy dem Arafat seen oto paan ci yoon bi bi seen oto paanee rek waa ji Diop la sant nee na benn kenn ci ujaay dafa ñëw ne ko Diop làppatool ak naar bi suñu aj baa ngi bëgg a yàqu <laughs> ndax oto baa ngi ni pante Arafat gaa yaa ngi ci mm. léegi nag xam nga loolu ñàkk xam la Arafat mm. kañ lay commencé kañ lay jeex nee na mm. làppatool ak naar bi gaaw parce que <laughs> suñu aj a ngi bëgg ak millions yi fee feeñee loolu itam waaw mooy li ma wax rek xasan mooy daal xam-xam da ci am solo lool. xam-xam bu manqué rek. dana feeñ ci jëf ji. waaye kooku xam nga bu amoon xam-xam dana xam ne arafa. naajee ca taxul tëréw sa taxul sa aj gi yàqu. Hmm. li am solo mooy ne la fa jant bi sooyee rek. Hmm. te fo diggante fa boo doon dox sax. balaa jant bee soo nga yegg arafa. Hmm. waaye dañu am ñoo xam ne midi rek bu jotoon. te fekk ñu rek ñeneen yóbbu am nañ problème <laughs> waaw moo tax tamit ñoom ni ma gisee ñi doxalee sax lu am am solo la hmm. mooy jël nit ñi rek